bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadil makin wa ala alihi wa sahabatihi xabir yoon wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi seetaan ci biir réew mi ak gis nga yëpp ñoo ngi leen di jagleel nuyu bu gën a mag gën a seet rek dina gën a bari te mooy boobu wax léegi yàlla borom ñu tabax Moustapha alayhi salaatu wa salaam gërëm suñu Tuubaa Xaadimu yaakaar ñaan yàlla ko ci islam di nga xam ne ci ñoom la yàlla jaarale ngeen di ñu mën jàkkaarloo ak ñun ci ngeen mën a nekk ci àdduna bu la weesoo di leen ndokkeel ci weeru leen di wax ne yéen mën a yàlla ji nga xam ne moom di dëgale ci njëlbéenu fukki fan yi njëkk yàlla na ko yàlla yiir jëkkër bi ci digg yàlla ko yàlla sotti ñu ne ci cat lii nga xam ne mooy gone ci sawar ak waa fi tawar loolu lépp li muy tekki mooy weer na bu am xorma weer la bu mag weer la bu guddi li gën gi yëpp dañu nekk wax ji aadama yi jaar loolu nag li muy tekk rek mooy weeru ngi nii di ko génn muy dem yàlla di te lim yóbbul yàlla na nekk ngërëmu borom nga war a jotee soxna Mame Yacine Ngom nga def lépp tey ñu mooy jikko joo xam ne yenn la ci génn woon su ma am ak muy kañaan mën nañu wax sax ne kañaan baat boobu wala jikko jooju. mandag boobu bokk na ci topp suñu Adama fa ko bàyyi fa mu ko jëlee te mooy ci yàqale ba fii ci àdduna ji nekk nga xam ngeen ne yàlla bi muy tàbbal àjjana Adama defalu ko dara lu jiitu tàmm tàbbal àjjana waaye xam ngeen ne seytaane képp la yàlla borom bi tabaaraka wa taala ne nee ko jàpp ak noonu moom rek nag mu taxaw temm ci bi mu yàqulee ba noppi rek taxaw ci yàqalaat ci la yàq la suma Adama alayhi ñu sanctionné ko génne ko aljana indi ko fii nga xam ne mooy indi da ko fii ma la indi nag soo lekkee yow la sa effort boo naanee yow la sa effort boo dëkkee yow la loo fi def rek il ba dara am ma doon ko waaye ci démb moom sànni ko nit ki lekkal naanal ndox lu neex waaye bu leen tege ci loolu la ko seytaane bi ñaani yàqal ko. jax-jaxe xelam ba laal la yàlla waxoon ne muy laal yàlla génne suñu aadama àjjana bi ko fi seytaane moom nag dañul di lëkkaloo ak doomu aadama koy wax moo tax ñu ne seytaane dafa séddale ko ay xaaj am doole ju toll day daw ci yaramu nit ni deret ci yaramu nit am kàttan gu toll ni ne ay doom ay sët ay sëtaat fu nekk ñu nekkal ko ay ambassadeur te du fàtte waaye weer wi di weeru koor na yonent bi aleyhi salaatu waxoon su weeru koor dikkee dañuy ubbi bunti àjjana afal tëj bunti sawar jëngu seytaane yëpp kon daa mel ni weeru koor weeru promotion la pour mën a tabb àjjana weeru may porte la pour tabb àjjana weeru weeru digg benn bi doon di moom ci yiw ci yiw ak yërmande yàlla jëkkël yàlla kon liñ ci déggee mooy ñu bëri bi doon mel ni ki jot sa message ne tey jii na nga profité nga jënd crédit par parce que promotion am boo jënd démb téeméer mooy téeméer tey boo jëlee téeméer ñetti téeméer lay kon weeru koor a fula nekk di jaamu yàlla te moo wa sallam moo ne ndax fa innal xasada yaqul xasanaat na kañaan dafay lakk ay yiw ba mu jël tàkk ñu mat lakke li nga xam ne mooy moo tax euh, kenn ci soo demee ba sëy jëf ci diggante ndigal ak tere mun la ñàkk nga bàyyi ci benn su boobaa da nga bàyyi ndigal la waaye tere ya ko na ndax la lépp lu yàlla bëgg ñu bàyyi bàyyi ko waxul mu passé directement daal ne bàyyi leen nag waaye def naa ko bu leen ko jëg kon ñaana ngoog nekk loo xamante ne bu ko def mooy ne ku posé yàlla ci li muy def mooy nit ki nii mu neex nii mu mel néewu nit ki nii yàlla ci moom dafa juum nit ki yàlla ci moom war ko ne ko ne nit ki li yàlla def nga ne yee da nga a joxe yàlla ci li mu doxal te gis nga añaan bokk na jikko yi gën a doy waar gën a bon gën a am kole moom balay yàq fi mu jëm dafay yàq fa mu jóge ba ndax nit ki ngay añaanee mu am dara waxtu woo xëyee la nga añaan day gën di yokk yow ngay gën di ñàkk sa xol di gën di wow ngay gën di muusu ci faatu ko jëm te ba faatu aj sawar nga jëm